jërë ngeen jëf mbokki internautes yi yéen ñu baaxoo di ñu topp ci info 15com comme ni nga xamante ni rek noonu lañ koy baaxoo di defee ay bés yu jot yu ne ñu dikk ak yéen ci seen émission jàngat jàngatu bés bi nag tey ñu fës a yéene waxtaanee ci génn bi nga xamante ni kii di Bougane Gueye Dany génn na ko ci coalition bi nga xamante ni nii moom la opposition bi tegoon tuddee ko Yewwi Askan Wi. Euh, njiital gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany njëkkoon na wane li nga xamante ni mooy naqaram ginnaaw bi nga xamante ni euh, ñi nga xamante ni ñooy coalition bi ñi ngi doon euh, fës a yéene officialiser bile coalition Bougane bokk na ci cause yi nga xamante ni moo tax. mu ni dafay génn ci bile coalition mooy daal euh, li nga xamante ni mooy logo bi nga xamante ni teg nañ ko ak couleur yi mu àndal moom gisu ci boppam te àndu ci. loolu nag daañu ci ñëw daal di ciy def benn jàngat mais nag ñun li ñu njëkk a jaaxal ci Bougane lenn la mooy Bougane mooy nit koo xamante ni daanaka rek kenn mënu ko ràññee kenn mënu ko xam bu tayee Bougane ni ah. taxaw naa ngir lëkkaloo ak opposition bi jëlee fi njiitu réew mi Macky Sall bu ëllëgee muy def loo xamante ne day mel ni kuy féewale ñi nga xamante ni ñoo nekkee ci bile opposition. ñu xool Bougane Gueye Dany yaakaaroon nañu ni de soo fekkente ni da nga ni euh, yaa jël dogal dugg ci coalition bi ngir xeex njiitu réew mi Macky Sall booy génn danga ñuy wax ni kat. li nga xamante ne nii moom laa gis ñu teg ko comme programme boo xamante ne nii euh, charte bi ñu tënk gis naa ne kat charte bi dëppoowul ak sama gis-gis kon dinaa ci génn waaye yow ñëwoo waxuñu lu dul ay logo beeg couleur beeg. kon yow sa bopp moo la fa bàyyi woon sa intérêt bopp moo la fa bàyyi woon sa intérêt personnel moo la fa bàyyi woon kon yow daal su fekkente ni comprendre naa bu ñu jëloon couleuru gëm sa bopp wala ñu jël loxo boobu nga xamante ni moo nekk ci logo bu gëm sa bopp ñu boole ko ci coalition bi kon su boobaa yow da ngay adhéré kon da ngay adhéré ndax lan moo tax ngay adhéré parce que euh, sa logo feeñ na foofu bugaan sa tappale yi war nga ko ba te nga xam ni que ni euh, li ngay wax nga fexe ba nga wane lu mel noonu nga bayyi tapale yi waye bu fekkente ni da nga ñew tay duguna mais damay joxe lamagn rocci damay joxe gemagn rocci lamagn lolu du lu kenn mën ta nangu yow bu fekkente gis nga parce que la tay ñuy def li nga xamanteni moy euh bëss bi ñu organiser ngir fessel lu ni mel yow bu gaan ya ñëk genn def conférence de presse dal di ni di nga fekk ji coalition yewi askan wi ba pare nga xamle ni yónnee nañ la charte yi ba nga liir ko Bougane lan moo tax jamono jooju laajte woo ana lan mooy nekk logo bi ak yan couleur la ñuy jëfandikoo ginnaaw bi nga xamante ni gisoo ko ci charte yi ñu la yónnee. comme li nga ko waxee démb nee nga ci sa wax euh, liñ la yónnee charte ci charte bi ñu la yónnee woon charte yi moo si ne. gisuñu ci couleur gisuñu ci logo lan moo tax ba nga ko gisulee te mu wër la ni bés tel nar nañ ko officialiser xam nga ko avant ana lan moo tee nga laajte ko boo ko laajte woon bu fekkee àndoo si kon lii lépp du doon loo xamante ni nii dina dina dina dikkee nii. wala boog nga ni ñu ànduma ci lii ndaxte couleur bi euh, ndaxte programme bi ñu tënk gis naa ni lii moog li Macky Sall teg ñoom ñoo yam mais euh, façon bi nga xamante ni moom nga doxalee loolu mënuñu ko d'accord te Bougane euh, yu mel noonu nag ñu ngi faral di ko gis muy bëri ci suñuy bët ñuy gis Bougane muy taxawee taxawaay yu ni mel moom toujours day signaler gauche jàdd droite toujours day signaler gauche ñëpp ni gauche la mu jàdd droite loolu moom ñu bëri na lu ñu koy faral di nemmeeku ci njiital gëm sa bopp bii di ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany nañu dellu ginnaaw daal di xool euh, jamono yi nga xamante ni euh, élection yi jub si woon na. Bougane dafa euh, bi nga xamante ni lankal nañ ko candidature am ci li nga xamante ni mooy parrainage yi ñu téye ko fa lan la Bougane wax dafa ni dina xool kan lay àndal gis nañ ko mu lambar lambari dem ci waa PUR bu Issa sàll gis nañ ko mu lambar lambar dem seeti ji Ousmane Sonko fa mu dem fu nekk ñun ñi nga xamante ne ay journaliste lañ di couvrir événement yi bu ci nekk yàlla dogal na fekkee woon nañ ko. bañ ko fekkee mu ànd ak waa PUR su ma fàttewul boobu de cees la woon bañ fa demee dégg nañu kàddu yi mu yëkkati ñëpp sax yaakaaroon nañu ni Bougane bii day ànd ak waa PUR ndax kàddu yi mu yëkkati woon wane ni sax valeur yi nga xamante ne ni moom la yore ak waa PUR dañ koo nuroo. ba moom si jëmu boppam mu yëkkati woon kàddu yu ni mel foofu ba man sax yaakaaroon naa ni Bougane ni mu waxee fii kat dina rejoindre waa PUR. mu jógee fa demati si Ousmane Sonko boobu itam même chose yëkkati fa kàddu yoo xamante ni ak taxaw taxawaay boo xamante ni ñëpp yaakaar nañu ni kii dina dem ànd kii waaye comme li ñuy wax rek moom toujours day signaler gauche jàdd droite. mais ñu daal di gis Bougane daal di dem rejoindre ki nga xamante ni mooy IDI 2019 ak IDI coalition bu IDI 2019 ak IDI fi nga xamante ni fa la jaaroon yëpp yëpp mais Bougane terewul malgré tout saa mu bàyyi fi ñooñu ñëpp dem fekk ji ñooñu. te lenn tamit am na Bougane tey mi ngi kaas logo ak ay couleur nañu dellu ginnaaw moom déjà li koy njëkk a démentir. ay waxam mooy li nga xamante ne nii jëfoon na ko jamono ji nga xamante ni dem na ci coalition IDI 2019 lan la wax moo ko dugal ci bile coalition Bougane dafa ni dafa rejoindre coalition IDI 2019 ndaxte gis na ni dafa am lu mu tënkoon ci programme mu dem ci coalition IDI 2019 fekk fa lu ni mel lii moo ko poussé ba mu rejoindre euh, coalition bii di IDI 2019 couleur bi laalu ñu fa woon couleur ku ne xam na ni couleur Idrissa Seck moo fa gënoon a fës ci coalition bu Idy 2019 daanaka ñëpp xam nañ ne couleur Idy la ñu jëloon. mais Bougane boobu yëpp waxul ci wax yooyu lan moo tax nag boobu waxul waxu couleur waxul waxul logo tey mu bëgg a ñëw di jooytu waxu couleur ak waxul logo kon dafa mel ni moom xamoon na ni sax. coalition bii nga xamante ni dugg na ci da ciy dugg rek peut pour jéem leen a jaxase wala pour leneen bon xamuñu mais boo xoolee doxalinam loolu lay gën a loolu lay gën a nuru léegi nag beneen bi stop yow gis nga ni sentiroo sa bopp ñëpp man de bettu ma ni Bougane Gueye Dany doon na génn ci bile coalition ndax bés biñ ko gisee mu ñëw toog. ci jour bi nga xamante ni ñi ngi doon euh, ñi ngi doon fësal boobule coalition ni mu doxalee de man de may na ma ci sama xalaat ma xam ne kii bés bu ma xëyee dégg ñi ni ma génn na ci coalition bi du nekk loo xamante ni lu may lu may bett la te malheureux euh, te yàlla dogal na niñ ko xalaatee woon noonu la amee bettuñu benn yoon kon kon nag bugaan bu fekkente ni li ngay wax nag lu nekk si yow la euh, gëm sa bopp boobu nag war nga xoolaat sa bopp ba gëmal sa bopp d'abord mais nga xolaat sa bopp xolaat sa taxaway surtout ci li nga xamanteni moy opposition bi yu melni rek motax nak nit ñi dila tuumal nan la yow ap pion nga bo xamanteni da ngay euh, liggéeyal njitu rew Macky Sall te yu melni bu dakul itam euh, nit ñi duñu wëy ci diko wax te itam su boba yet du neexa weddi kon euh, yow mi di njital gëm sa bopp bayil xel bu baaxa baax nit nak ku ci nekk am nga droit nga xool fu la neex nga dem fa mais yow ba mu la wóoree ni doo bokk kay ba mu la wóoree ni euh, yooyu yëpp doo ci dëppoo mais jarul ngay dem te ñun beneen bi sopp ñun ay intérêt personnel ñun sénégalais yi sono soxal euh, soxaluñu xam nga lan moo ñu soxal dañuy ànd liggéey ngir. fexe loo xamante ni day jëmale suñu réew kanam waaye yow bu nga ñëw taxaw naan ñu ay logo bi gisuma ci sama bopp ak wax naa la ñu changé ko nanguwuma yow yow rek yaa fa nekkoon comme parti ñaata parti la ñu gis yoo xamante ni nii euh, wala boog ay mouvement yoo xamante ni ni ñi ngi fa woon ku ci mel ni euh, Serigne Mansour Sy Djamil bés du ñàkk ku ne xam na partem dayo bi nga xamante ni am na ko parti ki nga xamante ni mooy euh, Déthié Fall ñoom Malick Gakou ñoom seex Bamba Dièye ñooñu ñëpp ñi ngi fa woon te je pense que ni kii nga xamante ni mooy Déthié Fall Cheikh Bamba Dieye Mansour si Djamil Boubacar Camara ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci coalition bi ñàkkuñu fayda ñàkk fayda gu toll ni dinañu toog gis ñi nga xam ne ñooy waa PUR xalifa Sall ak Ousmane Sonko di leen diri ñoom ñiy lang ci ginnaaw loolu moom yaakaaruma ni ñooñu ñàkkee nañu noonu fayda mais nag euh, buggaan ku jàngat ay waxam euh, di nga xaw a ñaaw njort ni que ni euh, li tax li gën a tax mu génn mooy que ni d'après critères yi nga xamante ni teg nañ ko amaana yaakaar na ni ci ay gox yu bari amul chance ngir ñi nga xamante ne nii moom ak ñi bokk ci partem wala coalition am amuñu sance ngir mën a bokk ci ñi nga xamante ne nii dinañ leen samp ci élection yu ñu dëgmal. buggaan ñëw nga wax ni am nga doole wane ko fépp ba ñëpp yaakaar ni Bougane ñu ko am doole la ñu dem ci ay pare parrainage sax mënuloo ko jàll kon nag Bougane delloosil sa xel bu baax a baax a baax may wax itam ñi nga xamante ne nii ñooy askan wi bu mu leen bett ñu leen xëy ëllëg daal di ni Bougane ànd na ak kii di Diop Decroix ànd na. ak kii di Pape Diop wala ànd na ak kii nga xamante ni mooy maître Ablaye Wade loolu bu amee itam bu mu bu mu bett kenn mbokk yi li mooy jàngat bi ñu doon indi tey du ñu def lu dul di leen jox dig daje euh, beneen yoon ak beneen jàngat ci seen chaîne info 15 point com